Euh, la transnationalité des acteurs maintenant ñi nga xam ni ñooy jihadiste wala militant la amatul réew moo xam ni wala frontière yoo xam moo koy tënk beneen bi mooy euh, idéologie parce que mbir mu nekk boo xoolee euh, terrorisme bi mooy aboutissement bi rek mooy jeexital mooy mooy cëppaandaw ga mhm. mais li nga xam ne moo koy suuxat muy idéologie maanaam xalaat yi nga xam mooy indi loolu xalaat yooyu moom mi ngi fii te mi ngi ci biir Sénégal mi ngi ci biir Sénégal. am na ay mouvement yu xalaatee noonu. am na ay mouvement yu xalaatee noonu ci biir Sénégal te dañ ko jéggaane ci ci mooy wahhabisme bay wax Mohamed Ibn Abdul Wahhab. Mm. yoo xam ni méngewul ak suñu aada méngewul ak suñu culture te day transposer yeneen problème politique yoo xam ne feneen la jógee bokkul suñu suñu préoccupation préoccupation ñu koy importe di ko indi fii suñu biir réew. Mm-hmm. te loolu li koy waral mooy mooy utiliser diine ngir sàkk pouvoir lislaam ak alquran mënul nekk mukk. man jàpp ma ko mu nekk une théorie politique dama ko jàppee mu nekk une théorie de la libération. Uh-huh. mu nekk aussi euh, théorie euh, critique du pouvoir. mais bis boo jëlee diine ni mooy sama opinion politique rek bu boobaa yow yaa tooñ diine parce que. Euh, te mouvement yooyu bu ñu dawal opinion politique lañ koy jëlee. dans sa manière d'organ de s'organiser dans sa manière de gérer un pays. oui parce que dafa am Abdullah ibn Muqaffa dafa am uh-huh. lu mu wax mu ni gëm-gëm. mu ni wàllu diine wàllu gëm gëm-gëm la wàllu xalaat ak opinion loolu wàllu débat la ak divergence bu fekkee da nga jël euh, diine def ko muy sa opinion politique kon yow yaa gaaral diine mu nekk ci place bu ñu defee débat ak bu ñu koy contesté ak fu nekk divergence bu fekkee da nga jël sa xalaat nag euh, sa diine xalaat def ko muy diine bu baax da ngay jël sa xalaat danga ko sacraliser te loolu mooy li nga xam dañu jël diine def fa muy seen marchandise politique dañ nekk contexte boo xam ne ku nekk am na fooy inspiré woo politiciens yi ak ñeneen ah mais ñii dañu jël diine ni mooy seen idéologie politique uh-huh. euh, euh, accaparé ko def ko li arab naan xekr ñoom rek ñoom ñoo ko moom ñoo war a wax ci turu diine ñoom ñoo représenté l'islam alors que loolu lu ñëpp bokk la mais xalaat yooyu muy wax Abdul Wahab boobu mu ngi fii mooy wahabisme boobu mhm. ci wàllu tawxid boobu ñuy jàngal mu nekk jàngalin boo xam ni jàngalin bu boo xam ne sore na lool ak lu ñu gëm muy euh, tawxid mais bédouin euh, dans une civilisation boo xam ni bokkul ak suñu civilisation fa mu sosoo sax bëggatuñ ko ñoom ñoo koy exporté léegi am ñu ko jëggaan nag indi ko ci biir réew mi ngir nasaxal li nga xam ne amoon na fi muy ay ponk diine yu leer muy am jàngalem diine mu leer moo xam ni ci jàmm ak dëkkandoo bu yiw ci mën na prospérer mais prospérer na bu yàgg parce que réew mi professeur lu waral loolu ah, ma yaakaar naa li ko waral moo di ne boo seetloo euh, li ñuy ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo violence mhm. fu mu juddoo ak euh, na mu màggee ci at yi ñu génne maanaam boo jëlee mille ak léegi 2001 ak léegi mu ngi Arabie saoudite ci boppam ñoo jëkk am en 2001 attaque terroriste kenn mënu ko woon xalaat mu xew loolu Arabie saoudite ba nga xam ne benn ci biir Arabie saoudite ci biir ajug Makka la woon defe naa ba nga xam ne Ben Laden moom ci boppam itam organisation bu ñu dàq ko mu dem bitim réew mu jëm organiser faneen léegi nag xam naa ne mbiru terrorisme comme lu jafee xeex la comme mooy ennemi bi nga xam ne nee nañ mu ngi ne la jàkk di la gis te yow doo ko gis. Uh-huh. noo koy xeexe ah, ñooñu itam fan la ñu jóge dafa am loo xam ne li de yaakaar naa ne du sax ñu jàng arab rek mais ñi nga xam ne dañu xaw a ëppal ci mbiru diine ndax boo gisee Euh, ñi nga xam ne ñi lay yëpp ñoo bokk ci groupe terroriste yi tey ñu bari seen njàngu arab demeewul noonu ñenn ñi ay ingénieur lañu ñi xoolal ci biir Al-Qaïda ak ñi attaqué euh, euh, les kii. deux mille onze septembre. Mm-hmm. léegi nag dama yaakaar ne ab ñoom suma collègue yi Abdou Aziz ak Bakary wax nañu ko dafa war a am lu ñu saytu ci suñu biir réew li ñu intéressé mm-hmm. moo di ne groupe yi nga xam ne ñooy formé yàgg na ñu def ci ay conférence yoo xam ne États-Unis organisé nañ ko dans pour les pays di Sahel. Hmm. pour ñu seet saytu mbiru sécurité ndax yàgg na ñu xam ne ñu ne groupe salafiste de prédication bi ne woon ci sud algérien moom moo wàcc ñëw Niger jóge Niger dugg euh, Mali jóge Mali ba léegi mu ngi bëgg bënn dugg faneen te léegi tam boo seetee groupe yooyu ni ñu formé woo ñoom ñëpp alqaida al maghrib la tudd seen bopp plus ansaaru diin ak MLA yi nga xam ne ñoom ñu ngi xeex pour affaire azawat pour seen état ba mu ne <laughs> di noon léegi nag am na ci nit yoo xam ne ay benn benn nit du ma ne association mais ñoo xam ne ñu ne am nañu xalaat boobu yaakaar nañu ne ci réew mi mi war nañu mën a tëral beneen tëralin boo xamee ne bi la ñu ngi koy tëral ci diine ndax da ngay dégg sax ay intellectuel yu mag di wax ne waaw Sénégal 95 pour cent des musulmans la ngoon ne dañu war a àtte àttewoo ci mbiru diine te loolu boo seetee monde arabe ba monde arabe jeex même bu dee cent pour cent kenn àttewul ci mbiri diine kan mooy àttewul ci mbiri diine ci àdduna Arabie saoudite xëj na ak Soudan ak euh, Afghanistan ci temps wu taliban yi uh-huh. mais boo seetee li nga xam ne yëpp moo nekk di Euh, loi yi ñu tëral. du charia fondamental voilà loi yi ñu tëral. Mhm. moo xam li ñuy woo ci ahwaalu shaxsiya la. Mhm. Euh, ñu koy waxeeti euh, li ñuy àttewoo ci. ci code de la famille ak li ñuy àttewoo ci loi yi nga xam ne les mooy loi positive yi yooyu yëpp ñu ngi ko am na inspiration diine waaye diine taxu ko jox. naka la gouvernement bi nag di def ba nga xam ne dana mën a contrôler. ñi nga xam ne dañuy indi seen xaalis di tabaxi jàkke di tabaxi complexe islamique di tabax ndax loolu dëppoo ne wala dëppoowul ndax bu fekkee ne sax ñun demandé woon nañuy livre ay livre bu ñëwee jóge bitim réew war nañu saytu ba xam livre yooyu lan moo ne ci lañuy jàngale buñ kalaat laa ci biir Sénégal hmm. loolu nag yaakaar naa ne service de sécurité douane am nañu si liggéey bu rëy bu ñu war a def pour loolu bañ a law ci biir réew mi ñi nga xam ne dañuy génn li nga xam ne moom la alquran wax ak charia wax ñu jël seeni xalaat bëgg jël loolu dëppale ko teg ko ci kaw charia ne lii nag mooy li nga xam ne moom la nit ñi war àtte woo <laughs> yaa ngi nekk ci kuréel boo xam ne rassemblement des mouvements islamiques moom nga wax est-ce que seetlu nga ne si biir mouvement boobu parce que da ngeen dajale ñu baree bari sentir nga loolu. waaw merci Pape maa ngi lay gërëm di gërëm euh, ñi ñuy seetaan yëpp. ak ñu ñu mhm. toogal ci plateau bi. pour euh, leeralal rek ban euh, ci wàllu maa ngi commencé di liggéey ci mouvement associatif ci wàllu diine ci depuis lycée. Mhm. di ci yëngu après nekk nag ci mouvement boo xam ne dafa ànd ak ñeneen di yëngatu. Mhm. boole seen doole di yëngatu rek ci wàllu développement ak ni ñu gisee tamit. islam di ko promouvoir aussi dans dans le Sénégal surtout à travers les écoles et les universités. mais kii tudd na léegi écoles yeeg universités yi ñëwal ci loolu. waaw ci loolu li ma ciy bëgg a abord may njëkkee ci wàllu termes yi ñuy utiliser parce que fii ay borom xam-xam ñoo fi nekk te on aura je crois la possibilité terme bu ñuy utiliser wala bu ñu jëlee ci biti bu ñëwee fii ñu càmbaraat ko. Euh. menace terme menace dafa dafa foor menace mooy loo xam ne da ne. tey tey tey am na ay conditions yu fi nekk yu war a mën a tax terroristes yi def dara Sénégal loolu amu fi loolu benn la mais nag dàqontewul nag ñu xam ne Sénégal dafa am lu fi nekk loo xam ne dafay am yu muy favoriser daanaka du rek ci wàllu terrorisme bi mais en général boo seetloo Sénégal ci wàllu ci Afrique de l'Ouest géographiquement ni mu mel dañ lay wax ne plateforme la boo xam ne transit drogue bi dafay jaar di dem bitim réew. même Sahel bii mu tudd léegi professeur fii lay jóge lu ci ëpp surtout cocaïne bi di du di fa dugg gis nañu lu ci bëree bëri aussi ñenn nit ñu nga xam ne dañ leen di rechercher wala di leen topp du rek ci réewu diin arab yi même ba ci réewu nasaraan yi man mbuur ga ma dëkk sali bés bu ne renseignement généraux ñëw këyir fa benn nit boo xam ne ci Camorra bi la nekk wala ci. ci leneen la nekk d'accord dinañ wax ci drogue bi mais ci ci l'islam bi. ci l'islam bi. est-ce que yéen mouvement yi ngeen kii sentiroon na am na mouvement type de réflexion yoo xam ne wuute nag notre pratique religieuse. no am na lu ñu fi tudd léegi ci wahhabisme. Mhm. mais wahhabisme bi effectivement daf ci am aussi si biiram ay écoles yi école daf ci am ay gis-gis parce que tendance wahhabite du du de du nekk tam tendance jihadiste obligatoirement. Mhm. parce que am na ñoo xam ne ay wahhabite lañ te Sénégal moo fi ëpp maanaam conception bi ñu am ci diine. mooy ils ont une certaine lecture islamique bokkul ak tendance bi nga xam ne soufi bi bi fi nekk bi ñuy tudd léegi mais tendance boobu nekkul une tendance jihadiste parce que tendance jihadiste moom li muy gëm comme moyen de promotion de l'islam mooy mu utiliser les armes loolu gisuma ko Sénégal mën na am nag ay benn benn yoo xam ne xalaat boobu mën na dugg ci ñoom ce serait intéressant maintenant ñu xool xalaat boobu lan moo tax muy dugg ci ñoom parce que xalaat boobu li tax muy dugg souvent professeur junj na ko léegi du question rek parce que état pauvreté bi jeunes yi di nekk. wax na ko léegi te loolu laa gën a gis ne mooy nekk solution solution du utiliser ay amate nit ñi sécurité bi ñu amate leen déedéet parce que renseignement généraux ak sécurité Sénégal dañ naan ñu renforcer ko mais ñu ngi def seen liggéeya ah. parce que fii ci Sénégal amul juma wala université wala foo mën a dem ñu fay tudd islam te état bi tegu ci bët loolu moom il faut ñu waxante ko bon naka ngay nekkee ci réew moo xam ne yow say majorité doom munoo leen jàngal. Mhm. nga bañ dem uti xam-xam bi feneen loolu moo njëkk nekk. danger xam-xam ak am xam-xam ko neneen c'est deux choses. non li ma bëgg a wax foofu rek mooy. Mhm. am na ku ko junj léegi soo seetloo tey région yu mel ni ay Kolda ay ay Saloum déjà système scolaire bi ñu créé nii ak universitaire bi xoola récemment arabisants yi nga xam ne li ñu doon jàmbat mooy dañuy am seen bag du ñu mën a jàng fii wala duñu mën a insérer wu. la leen di defloo mooy da nga leen di bàyyi yeneen pays arabes yi ak accueillir leen ci seen réew jox leen xam-xam alors que xam-xam boobu ñu leen di jox ku la jox xam-xam jox la orientation idéologique léegi moom ngay indaale et puis ma fàttali benn affaire du rek gis nga boo seetloo la gauche sénégalaise bi nekk fi tey bi ñuy doog a yëkkati seeni xeex amoon na ay idéologie jihadiste maanaam util utilisation d'armes yoo xam ne euh, euh, tendance guerrière yoo xam ne amoon nañ ko. Mhm. moo lay won ne Sénégal aussi idéologiquement amul frontière c'est-à-dire Sénégal mënoo ne dama koy tëj ci wàllu xalaat. Hmm. parce que xalaat mais religion c'est quelque chose de très sensible xam nga la politique peut ne pas mobiliser mais la religion c'est du domaine de la foi. ma ñëw ci c'est c'est là où la manipulation est dangereuse foofu laay ñëw ci professeur laaj la ne la professeur euh, facteur endogène. day am ci réew est-ce que tey jii y a des facteurs endogènes yoo xam ne qui rend le Sénégal une cible potentielle. oui facteurs yi bari na bu ci njëkk mooy. Uh-huh. xam nga euh, euh, sama collègue et doyen Babacar Sànq dafa wax ni il faut am na loo xam ni ci enseignement bi li mu tuddee la dualité. du système éducatif sénégalais ñaari façon njàngin dama doon waxtaan benn diplomate mu ma mais est-ce que seetlu ngeen danger bi nga xam ni seen réew mi ngi koy euh, mën na gete seen réew mën na ko lan la mënuma da ngeen am ñaari benn réew bu bëgg tabax benn nation am ñaari système éducatif yu bokkul. muy ban ak ban muy bii sa système hérité de la colonisation française muy l'école hmm. publique laïque et beneen bi mooy l'enseignement privé confessionnel euh, religieux islamique hmm. coranique comme on peut l'appeler yooyu l' état yaakaar naa ne bala ñuy du euh, jëm baaraamu tuuma fenn. Mhm. Euh, état Sénégal dafa war a yàgg réparer benn injustice. boo xoolee suñu suñu suñu système am nañu direction de l' enseignement privé catholique am nañu direction de l' enseignement privé laïque. Mhm. am na direction de l' enseignement public. mais li li li doon xalaat mooy am une grande direction de l' enseignement privé confessionnel mu am une sous direction de l' enseignement privé musulman une sous direction de l' enseignement privé catholique comme ça ñëpp yam. tous les enfants de la République comme ni ko waxee kooku c'est quelque chose à réparer mais li ma li ma li li li li xaw a doy waar mooy manipulation yi ñuy manipuler religion même baatu charia niñ koy manipuler ku ne xam ne baat boobu li muy tekki ba connotation bi mu jël ba ñu jël ko mu comme source comme mu nekk une législation carrément ou bien un droit canonique kooku 19e siècle la koy door a jël bu ñu delloo ci téere yu njëkk yi nga xam ni ak dictionnaire yi euh, lisaanu arab wala yeneen euh, yàlla yeneen yeneen yeneen livre yi mais euh, l'islam boo ko bëggee jël ni man ni ma koy jëfe rek mooy noonu mhm. ñeneen ñi dañoo nekk ci bidaa dañoo nekk ci nangam du dox xam nga damay citer Ibn Qayyim ah parce que bu waxee Ibn Qayyim xëy na ñeneen ñi nga xam ne xaw nañu laxasu trop ci Ibn Taymiyya du ñu mer mhm. Ibn Qayyim al-Jawziyya dafa am benn téer bu tudd A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin ah, mu ci wax ni finalement lan mooy charia sharia lan mooy yoonu l'islam mooy l'intérêt général c'est la sauvegarde de l'intérêt général mais boo bëggee ñëw tey ni man ni nga xam moom laa gëmee man nii laay jullee wala gëmuma lii parce que parce que Pape bu ñu fàttee xalaat yi nga xam ni moo poussé ay nit ba ñu màbb ay bàmmeel ci Tombouctou mais xalaat yooyu laa wax ñoom ñu ngi fi tous les jours ñu ngi koy répété di ko jël de manière violente mën nañ dem ba ñun li ñu gëm ñoom bu ñu fa amee doole def lañ def Tombouctou waaw mais donc te te te fa mu jógee li ma ci gën a naqar yi mooy jéggaani boobu parce que xaadim fa mu jógee lañ ko njëkk a xeexee ah, Mohamed Abdul Wahab fin fin dix-huitième siècle frère am moo ko njëkk a critiqué euh, ci sawa sawaiqu ilahiya Souleymane Ibn Abdul Wahab ñu tontuwaat ñu dañuy indi maanaam l'islam boo xam ni xëy na question yoo xam ni question yu dépassé la même réew yi ñu ko jëlee dépassé nañ ko maanaam ki lii bu ko def lii kenn du ziare bàmmeel bi kenn def lii te yooyu traité nañ ko bu yàgg ah maa lay renvoyé aussi ci ouvrage Chawahidul euh, Haq fi l istighathati bi sayyidil nga xam ni question yi nga xam mooy tawasul mooy yi nga xam noonu la tarixa yi di def wala ni ñuy ziare xabru wala euh, am wasila ci noonu yooyu mhm. traite nañ ko bu yàgg muy débat bu yàgg boo xam ni nekkatul sax d'actualité ñu bëgg ko indi suñu réew nag amee diine ji kenn amu ci baat boo yëkkati boo yëkkati ñun la kaafir wala ñun la yaa ngi ci bida loolu laa wax ni moom mooy violence bi déjà violence bi commencé na violence verbale la deuxièmement am na lu am solo bu ñu dormir sous nos lauriers loolu la wax euh, keroog les militaires man leen dañoo yàgg ni waaye le mythe ce que j'appelle le mythe du sénégalais naturellement non violent sénégalais daal moom xamul yooyu. Mm. mais gis nañ ñu taal seen bopp buntu palais. waaw donc loolu. du benn sax loo xam ni c'est durable. alors ma ñëw ci euh, professeur euh, ba ci sama professeur euh, universitaire kenn du ko présenté sax alors li ma la bëgg laaj ci mi ngi nekk ci est-ce que foog nga ne y a un terreau fertile pour ces sortes de manipulation parce que soo xoolee mouvement yooyu bu ñu dugg la majeure partie soo xoolee pauvreté bi day nekk. comme évangile yi ñu doon def pauvreté bi da ci jouer la fois devient un refuge pour les désœuvrés ñu baree bari manipulation bi foofu lay nekk est-ce que foogoon ne terreau fertile bi moom mooy rendre le Sénégal une cible potentielle. bon euh, man dama yaakaar ni en fait ñaari mbir am na. Mhm. benn bi moom mooy que ñi nga xamante ni dañu jël diine def ko muy seen xalaatinu politique daf ci am ay pàcc yu bari am ñoo xamante ni ni dañu jël uh-huh. yoonu euh, topp ni askan yu bëggee ñu koy sàkkoo kilifte fi réew bokk ci ay élection am ñoo xam dañu tànn beneen yoon bi euh, ñi nga xamante ni ñooy frères musulmans yi tey ji ci Égypte uh-huh. nga xam ne ñoom ñoo jël pouvoir bi ci tàmbali bi ginnaaw bi Hassanul Banna génnee àdduna rek amoon na déjà jonjoo ci seen diggante euh, d'ailleurs baatu islamist mi ngi jóge ci ñoom parce que kii nga xam ne moo remplacé woon Xasanul Banna tudd Xasanul Xuday bi moom moo indi baatu islaam yi yun boobule ni ñun ñi nga xam ne ñoo gëmee nii ñun ñooy islaam yi yuun yi ñi ci des ay musulman lañ donc euh, am na ay pàcc yu bari ci seen biir mais si qui est important moom mooy naka la ñuy opérer opération bi ci jege askan wi ci ay bëgg-bëggam la ak ci euh, euh, xiir askan wi ñu euh, wan gannaaw lépp loo xamante ni dafay firndeel li ñuy tuddee modernisme wala modernité wala occidentalisation ci ñaari anam yooyu lañuy ñuy opérer anam bu njëkk bi mooy jege askan wi ci ay bëgg-bëggam euh, nguur gi jàngaluñu askan wi yëpp ñu wut leen jàngale nguur gi fajul askan wi yëpp ñu toppatoo leen fu ñuy faje nguur gi joxul askan wi lu ñuy dundee ñu en fait y une dimension humanitaire maanaam mhm. fekk daal euh, bëgg-bëggi askan wi nga jege leen ci xam nga loolu boo ko dee def dafa am loo xamante ni mi ngi mi ngi mi ngi xew bu yàggul lu ñu koy tuddee daawa donc ci daawa boobule dafa am modus operandi dafa am lu ñuy opérer loolu ci la bokk beneen bi moom mooy am na ci réew mi mais afu à gogo du fi jeex mhm. bi ci des moom mooy le sentiment national ce qu'on appelle un nationalisme religieux jàppee ni jullit ñëpp te loolu dëgg la jullit ñëpp ñoom ay mbokk lañ mais jàppee ni jullit ñëpp ay mbokk lañu ba fépp foo xamante ni jullit am na fa problème au lieu ñu xool ndegam problème bi problème économique la problème politique la problème ethnique la dañ koy jàppee problème mu jullit contre kudul jullit su ko defee nag loolu dañ ci opérer pour euh, yëkkati yëg-yëg bi nga xam jullit bi am na ko contre ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ñoom ñooy noonu jullit ñi di di Occident. Hmm. ci diggante bi jullit ñi nga xamante ni ñoom gisewuñu noonu dañu leen di jàppee. xëy na jullit lañu mais dañoo nekk ci jaahiliya xam nga tey jii boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy xalaatee noonu ñun dañu nekk ci période boo xamante wala ñun dañu nekk comme ñi dund dund bi laata ku tedd ki sallallahu alayhi wa ñëwee ci benn ignorance existentielle la ñu nekk boo xamante nii ñoom ñoo ñu ci war a génne. Mhm. nu ñu ciy génnee. ci daawa bi maanaam ce qu'ils appellent la réislamisation de la société dañuy islamiser waat société bi parce que ay jullit lañu mais islamiser wuñu hmm. islamiser waat société bi par la base mooy jaarale ko ci nii ma la waxee wala ñu islamiser ko par le haut moom mooy wut euh, nguur pouvoir bi wut pouvoir bi ñaari tendance la am na ñoo xamante nii dañuy jaaree ci ni ko euh, réew yi tërale élection hmm. am ñoo xam ne duñuy wut doole def jihaad te l'islam ñoom sax ñoo ko théoriser Euh, d' après li ñu génnee ci Sayyid Qutb fi Zilaalil Qur'an ak Maalim fi Tariq euh, dañu théoriser dafay théoriser ni jihad bi xam nga l'islam dañu jàppee ni jihad pour défendre l'islam la ñoom dañu jàppee ni l'islam euh, jihad ce n'est plus une activité de défense c'est une activité de démonstration loolu moom moo indi yu bari yi ngay gis ni hmm. donc Sénégal réewum jullit la moo xam ne am na ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu nag bu ci groupement yooyu la taxawee ci ni ni ma waxee boole ci di dugal seen idéologie uh-huh. euh, yokkute injustice bi am sur le plan international parce que Proche-Orient injustice am na fa Palestine amul kër bien sûr palestinien amul kër c'est pas juste euh, euh, Liban Hezbollah am na nu muy xeexee contre Israël République islamique d'Iran bëgg na bombe atomique ñu ne doo ko am donc yooyu yëpp nag boo leen dajalee dugal ko ci biir sentiment religieux nationalisme religieux boobu le booleeg lii dafay daal di nekk euh, loo xam ne mën nañ faa tabax ah, euh, ça c'est c'est très bien résumé alors euh, professeur est-ce que mouvement yi am fii Sénégal ñu leen ñu tudd nii nekk ci ki mën nañ nekk des forces de pénétration au point de faire sauter l'islam confrérique bi nga xam ne ñun moom la ñu xam yaakaaruma ko mais nag damay wax ne xam nga nag si mouvement yi nekk euh, léegi ci biir euh, Mali ci daal nord Mali am na bu ñuy tudde Moujao maanaam mouvement boobu mouvement de l'unicité la pour le jihadisme en Afrique de l'Ouest mu nga xam ne donc am nañu ay section yu nekk Mali am yu nekk Niger am yu ne Sénégal. am même Gambie gi dégg naa am na benn mouvement bu am doole bu fa nekk tamit. voilà nekk ci Serekunda. précisément. nga xam ne donc ñooñu ñu ngi liggéey. ñu ngi liggéey liggéeyu suuf. liggéeyu suuf boobu nag bu demee ba yàgg mën na indi laneen loo xam ne li dana gën a wuute. ak li nga xam ne moom la nit ñi gëm mu di l'islam confrérique bi nga xam ne suufi la gëm uh-huh. ndax gis nga ne comme ni que Serigne Abdoul Aziz waxe léegi ñoom bu ñu ñëwee ñu commencé di daaneel euh, cimetières yi di daaneel euh, euh, tomb machaayix yi mais daal li nga xam ne moo wér moo di ne maanaam l'islam moderne moo fi am l'islam radical comme ni ko kii wax léegi amu fi amagu fi waaye nag senegal léegi am na ay mouvement islamique yu bari yu bokkul ak mouvement confrérique am na léegi lu ñuy wax mahdiyun mahdi mooy mahdi ba nekk sa Soudan am na waa chiite ah chiite waaw ñu am na fi léegi am nga itam muhammadiyin am nga sunniyin am nga wahabiyin ah maanaam daal boo koy seet dafa mel ni la xewoon ci pays maghreb ya mu ngi commencé di wàcc se si Afrique te itam bokk ñi nga xam nañu ñu le dañu jàng arab jóge foofu am na ñoo xam ne ñu le xëñ na am nañu contact ak ñooñu te xam nga infiltration mm-hmm. euh, terrorisme daf di nekk loo xam ne leen lu gaaw la maanaam que bu amul organisation te am benn nit rek benn nit boobu mën na lawal xalaat boobu ci beneen groupe ak beneen groupe Eh, may dalal xel yi nag. kii loolu surtout surtout que dañuy wax ne mouvement yooyu dañoo am alal. ah waaw waaw am nañu alal am nañu réseau boo xam ne bile bu taxaw la te itam maa ngi doon junj léegi ne am na financement yu bari yoo xam ne yile sax yu bari États-Unis bi nga xam ne bi di septembre 2001 ñëw na am na yoo xam ne dañu ko arrêté. maanaam association yi doon dugal. teel boobu notal ma loolu yow laa koy eh, laaj ak yooyu. <laughs> donc am na mouvement yu bari yoo xam ne nañu daan dund rek nañu doon kii dafa xaw wàññeeku. Uh-huh. waaye nag am na yeneen am na faneen fu ñuy jaar foo xamee ne fi la léegi am na xalaat yi ñu ngi jaar xaalis bi itam mu ngi jaar ah ñun ñi nga xam ne dañuy yëngu ci mbiru arab li ñuy wax te nga xam ne gëm nañu ne itam ne euh, l'islam l'islam la te l'islam l'islam moderne moo am Afrique. Uh-huh. mais man dama gëm li Ali Abdourazek wax rek ne al islam wa usul al hukm mhm. mu ne euh, benn cheikh la bu ne woon al azhar 1925 dafa génnoon benn <laughs> livre di leen wan yàlla daal li wax ci alquran moo di mbiru diine nooy defaree sa diine ak nooy jullee nooy jàppee kooku mbiri yàlla la waaye nooy doxale ci àddina nag kooku mbiru nit ñi la hmm. waaw léegi nag naka la ñuy seete eh, eh, léegi naka la ñuy jàmbare loolu ba nga xamee ne bilee ñaari yëf moo ko séq ndax dafa am pàcc boo xam ne sëriñ see confrères yi ñoo ko yor ñooñu itam am na lu ñuy jiw ci nit ñi même suñu biir confrères yi am na ñoo xam ne ñi la danañu dem nit teg ko ba muy yàlla am na ñoo xam ne ñu jël nit yaakaar na lu mu wax loola moo war a am bu ne def leen ñu def mm-hmm. bu ñu seet na rek yaa am na ñi nga xam ne ñoo joge bitim réew. wala islamisme dinañ ñëw loolu aussi am na fii ci biir réew c'est important. est-ce que yéen seen kuréel yi mouvement yooyu da di jot koppar yu baree bari ak tamit duñ leen def lavage cerveau di leen gëmloo loolu ba ngeen menacé li nga xam ne da ngeen judd fekk ko fi. non Pape may bañ d'abord mooy amalgam. waaw amalgam ay ci amalgam moom dafa lëbe ko waaw parce que xam nga bu ñu nee. rassemblement des mouvements. islamistes dañuy sénégalais dañuy wax ne waaw. lii lii mouvement islamique. non xanaa yow ñeneen ñi nga xam ne bokkuñu ci ñoom loolu laay bëgg. non Sénégal dafa bëri ay école waaw soufisme tarixa mi ngi fi ci biir tarixa yi sax am na ay école et dafay évoluer gis-gis bi li wóor ba wóor li ma la mën a wax mooy tendance jihadiste bi ñuy wax nii dafa minoritaire ci monde islamique amul ci senegal mais doo ne damay tëdd nelaw. da nga mhm. koy da nga koy aar loolu lu wër la bala ñuy amate bala ñuy tiital sénégalais yi. Mhm. amu fi beneen bi mooy am na ay jéego yu monde islamique di def. dañ ci dul bàyyi xel récemment xaradaa yi ñëw na Sénégal ànd fekk ay borom xam-xam am na ñu ci bokk Sénégal ci ñooñu man dem naa Mauritanie fekk fa rencontre ba xam ne même ci këru diine sénégalais yi bokk nañ ci. Uh-huh. ñoom li ñuy prôné mooy wasatiya mooy la juste milieu. te loolu li ko indi mooy moom mu mu mu ñu théoriser ko mooy xam ne seeni doom ñu ngi leen di manipuler benn façon boo xam ne ñenn ci ñoom. te uh-huh. minorité na pour ñu moytu ko il faut ñu taxawal xalaat yoo xam day delloo wane ne islaam de du islaamu violence loolu benn la ñaareel bi mooy yu bëri ñuy wax ay école la ay gis-gis la ay point de cest à ay position parce que inspiration diine mënu ko tere nit kenn mënu ko tere sari à nit mënoo ko tere mënoo utiliser nag manipuler diine pour de question politique wala sociales wala lu mën a doon mais nit ki nekk jullit pour tënku ci diineem inspiré wu lu ci lu ko mën a may mu mu mu dund àddunaam loolu déjà même ci soufi bi soufisme bii ñuy wax nii taxawaguñ ci parce que soufisme bi amul gis-gis taxawaay bii mu am tey muy islaamu wird toog sa der amul woon Sénégal soufi mag ñi fi jaaroon doon wootewu sufisme utiliser nañu arme pour des questions politiques Maba Diakhou Ba bi muy woote jihaad ñoom Mamar Anta Sali dafa dem di ko wuyu si waa Yoof di dem waa Murid waa Tidiane di dem ñooñu ba ñu ba mu koy woote dafa amoon gis-gis si colon bi ni mu fi taxawee woon mu xam ne toog rek di wiir de ka ñaan jëleewu ko fi mu jàmmarloo ak ñoom. Cheikh Omar Foutiyou Tall fii nag ay colon amatu fi. non no mais non non non loolu li ma bëgg mu leer. <laughs> mooy mhm. mooy au lieu cest à dañu war a xool est-ce que am na ay menaces nga taxaw ci. bokk na ci léegi lu ñu doon dunju école yi bokk na ci li doon mooy njàngale mi. parce que boo bëggee menaces yooyu dañ doo ko reeteet kese yem ci dangay ngay liggéey liggéey bi mooy xale yi nga jox leen liggéey euh, nga jox leen euh, xëy li xew Mali mais nooru Mali bi lu tax ba lii am fa tey te avant muy nekk islamiste yi bu ñu fàtte MNLA la uh-huh. mais MNLA groupe bi laïque la du ñu ay islamiste ñoom ñoo njëkk a sooke affaire bi ñële jóge Libye fekk terrain bi fertile ñu ñëw dal ci profité ci te minorité nañ la wax mais boo liggéeyee ci wàllu école liggéey ci wàllu xalaat idéologie mais réew moo xam ne. contre la lutte contre la pauvreté. la prise en charge des préoccupations. beneen affaire bi aussi mooy y' a beaucoup de manipulation yaa ngi am na ko dudd sànq financement. c' est vrai que groupe yi am na ñu ñoo xam ne Al-Qaïda day financer képp ku xalaat ne bëgg nga def li muy def ci si réew mu jàppale la Moujao bi muy wax ni parce que boo seetloo euh, au Mali au nord ni fa Al-Qaïda def comme stratégie mooy day jël Moujao jox ko benn Mauritanien. bu ñuul nit ku ñuul ak malien ne leen jiite leen ko pour mën a xëcc ay nit ñu ñuul ñu ñoo fekk ko mu jël ku mel ni ansaaru diin ñu jël leen jox leen par exemple ay nit ñu weex ak ay touareg ak mi nag algériens yi ñoo ko jiite mais manipulation pour manipulation mais ay ay documents yu wër fu wone nañ ne renseignement français yi xam nañ ne ak mi bii ñuy wax tey naan ay islamiste lañ ca njalbeen tuddul woon noonu GSPC la tuddoon Uh-huh. mais groupe salafiste pour la prédication et le combat. mais am na ay documents yu wër yu wax ne renseignement généraux yi armée wu Algérie ñoo ko créel seen bopp pour mën a contrôler manne pétrolière ba fa nekk moo tax boo déggee c'est-à-dire tëll na damm na dafa yomb. Uh-huh. cest à lu ci bëri c'est pas pour des raisons ay ay is non non non cest a d'autres paramètres yoo xam ne soit c'est économique. Uh-huh. wala aussi ñu fekk yow nooru Mali bi nga xam ne état bi dafa fe dafa bàyyi defu fa dara. gars yi tuaare gi nekk fa. frontière yi ubbeeki terrain bi fertile ñaareel bi mooy surtout la crise euh, libyenne. la circulation des armes bul fàtte ñaari mandat la amoon. wala mhm. muy terminer ñu daaneel ko. Mhm. mais diggante mandat mi bi gars yi jógee Libye ñëw. mais Sénégal yéen amu leen seen mouvement yi amul loolu. non Sénégal ban mouvement bu am au contraire Sénégal ñi fi nekk gum ñu sante ko yàlla di woote woo diine. Mhm. ci tarixa yeeg ci mouvement yeeg ñëpp inspiration bi xanaa xamoo réew na nga fay liggéeyee. cuub ba nga fe la nga fa fekk moo lay cuub. Uh-huh. mais yi tey. Uh-huh. li ñu fekk seen maam yi doon def. mais loolu moo leen di inspire maintenant. Uh-huh. risque bi mën a tax ñu am yeneen xalaat yoo xam ne naka sudul la te ma yokkal leen ci am na sax loo xam ne étudier guñ ko boo demee ci am na am na ay benn benn Sénégal pour wax la manipulation. mës naa fi gis ay jeunes yoo xam ne mouvement la ñu ci benn mouvement du nekkuñu ci mouvement dañuy toog. di woote ay nit eh, bitim réew ci réew arab ñu leen di wax lu ngeen di def. bokkoon na ci ay yoo xam ne pare woon nañ jamono Abdoulaye Wade. dañ leen gëm gëmloo woon ne nit njiitu réew même bu dul kuy woote woo jullit sax war nga dem jaayanteeg moom ñu bëggoon a jàmpale jaayanteeg Ablaye Wade <laughs> loolu yëpp ci wàllu xalaat ma ñëw ci que c'est ouvert à toutes les pensées mais exagérer juste est-ce que euh, tey jii euh, vu situation bi nu mu demee nii parce que au Sénégal on par de soufisme wahhabisme de chiisme est-ce que ñun malgré li ñuy wax noonu yëpp ne courant la mu ñu mosuñu gis ne y a une confrontation réelle d'école au Sénégal oui du du du confrontation mais euh, peut-être mën na am choc des modèles loolu c'est possible. choc des modèles oui mais pas de confrontation mooy mooy xam nga l'islam ci boppam. Mhm. moo bindoo noonu du du Sénégal kese xam nga. Euh, li tax ma ni yenn idéologie dafa dangereuse. mooy wahabiya wala euh, salafisme wahabite comme ni ñu koy waxee mooy dañuy jël euh, li ñu tuddee seen diine rek wala li ñu gëm. ni moom la ñëpp war a gëm te lislaam moo bindoo diversité ca njëlbeen ga ah maa ngi lay renvoyé waat ci Shahrastani mm-hmm. al milal wan nihal ah les voies les il y a plusieurs voies mm-hmm. c'est comme ça l'islam même dans le soufisme mm-hmm. mais léegi boo bëggee ñëw nag ni xeetu gëm-gëm gi jël ay mots manipuler ko premier mot bi ñu manipuler mooy baatu tawxid mooy wéetal yàlla et cetera ci benn une pauvreté spirituelle boo xam ni doy na waar bu fekkee l'islam mooy loolu c'est très simpliste gën na xóot loolu te ñu koy sant suñu magu tasawuf fii beneen bi mooy baat bi ñu jël mooy baatu sunna ñëw ni ñooy ñu ñooy ahlu sunna mais mag ñi lan la ñu woon ñoom maam Serigne Touba lan la ñu woon ak ñun lan la euh, euh, ñu ak ñi nekkoon Seydi Hadji Malick ak ñun lan la ñu woon esprit ahlu sunna pour lan leen nga ñëw nag ni man maay ahlu sunna jàkka ji nekk ci université bi man rek maa koy contrôler beneen expression religieuse muy mouridisme muy tijaani wala keneen waru fi def ay pratique man maa moom jàkka ji man man maay ahlu sunna jël sunna def ko moomeel. et li ma liggéey waaw man li ma gën a remarqué lu sori l'islam ils sont à l'idée même nga partager ak ñoom parce que ku nekk étudiant sentir nga na ñoom bu ñu toogee ils sont seuls entre eux. ils sont très réfractaires sur buy socialiser la seen religion de socialisation. Mm. bu demee ba nga xam nag islam dafa nekk loo xam dañ koy interpréter bu nekk loo xam daf la isolé. par rapport au reste moo def la euh, kenn koo xam ni tu tu ne vis socialement wala nanguwoo ñeneen ñi seen expression ci l'islam nga xam ni richesse la ixtilaaf boobu ñuy wax divergence boobu seen richesse c'est même signe de miséricorde divine euh, maanaam day mandargal yërmande yàlla si ñun uh-huh. yow nga ni li ma gëm rek moo am ñeneen ñi moo am jàkka ji comme ni ma ko waxee fee ci université bi lu leer laa la wax ci jàkka ji lii lañ fiy def keneen ki bu yoree kurus du fi def lii keneen ki bu que baatu sunna bi ñuy manipuler noonu jàppee ko noonu kenn moomu ko kenn ñëwul ni may ahlu na te sax bu ñu ko tegee ci histoire mën nañ ñi mooy dernière école bi nga xam moo moo juddu ginnaaw confrontation bi amoon en 657 à la bataille de Siffin donc bu ñu delloo ci histoire euh, duñu am raison bu ñu delloo aussi ci islam ak ni mu tëddee ak ci wàllu divergence des opinions ni mu ci war a amee duñu mën a am kenn mënu ko justifier kon loolu nga xam ni moo fi am benn genre extrémisme laa koy tuddee boo xam ni dafa bëgg a jël lislaam daf ko moomeel bëgg ko utiliser pour des raisons politiques. Ah, alors ma ñëw ci bu ñu demee ba constater ne éventuellement am na benn sénégalais bu bëgg a génn ci yooyu bay prôné idée yooyu est-ce que c'est du échec gu confrérie yi parce que confrérie yi tamit soo xoolee li ci bëree bëri amoon nañ ay daayira fu ñuy tàggatee seeni taalibe ñu xam lu bëree bëri ñu fay jàngale wala lan moo waral loolu. en fait du du échec ku confrérie du échec ku euh, du échec yeneen euh, association wala succès wu yeneen association yi nekkul confrérie euh, nañu xam ni d'abord confrérie yi indiwuñ fi l'islam mhm. l'islam jiitu na confrérie yi fi mhm. sànq mon jeune frère parlait de par exemple du djihad mhm. de Maba Diakhou c'est-à-dire que l'islam à tout moment dafa accompagner les processus historiques yi am Sénégal depuis l'esclavage jusqu'à l'indépendance du Sénégal jusqu'à l'alter jusqu'à l'alternance jusqu'à aujourd'hui mhm. avec euh, le, le nouveau processus Yaakaar. et la percé aussi des religieux à, l'élection donc euh, oui législative. Euh, justement mhm. et justement ça ça ça veut dire que l'islam dafa mës accompagner les processus historiques et dafa am benn moment boo xamante ni processus historique bi. Mhm. islam bi ko accompagner c'est l'islam confrérique. loolu loolu tekkiwul ni islam confrérie moo fi jiitu islam ji euh, jiitu na confrérie yi benn ñaareel bi islam confrérie aussi dafa cohabité woon ak yeneen islam parce que tamit il faut pas croire que sénégalais yëpp dañu mës a bokk ci confrérie bi fi mag ñu baax ñi nekkee amoon na yeneen nit ñu amoon ay association yoo xamante ni ni bokkuñu woon ci benn confrérie seeni association la woon pour ñu ciy doxal seen diine Euh, ñetteel ba moom mooy que euh, yeneen organisation yi bokkul ci confréries yi dañu critiquer c'est une critique des confréries non pas sur le plan religieux moo tax ñu ñu ñu taxawaloon seeni association mais c'est une critique des yi dans le rapport avec le pouvoir maa maanaam li li juróon organisation yooyu li moom moom dañu doon sikk naka la tarixa yi duggante woon ak nguur gi moo xam ci colonisation bi la moo xam ci tàmbali euh, bi ñu moomee suñu bopp la duggante gi ñu duggante woon ak nguur gi ñu gis ni ñoom dañu jege nguur gi gën a sori askan wi sikk googu lañ leen sikkoon du woon sikk ci wàllu diine mais sikk ci wàllu taxawaay ci turu diine la woon donc. Euh, tey bu ñuy sikk confrérie lan lañ leen mën a sikkee tey. ah confrère yi lii Babacar doon wax. mooy dëgg lu nekk la maanaam man sama étudiants yi dama leen di tooñ. dama leen wax wóor na ma yow bi nga xëyee suba da xool sa portale Serigne taalal say loxo ni ko euh, euh, Serigne Bakary maa ngi nii di dem defi examen nangam ak nangam. waaw ah, loolu c' est des yoo xam ne dañu koy dund. Mm-hmm. ngay ñaan yàlla nga ñaan sa Serigne au lieu nga ñaan sunu borom subhanahu wa taala loolu lu ñu mën a sikkee maanaam mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo sos tarixa yi encadré nit ñi. ci wàllu diine wàllu gëm sunu borom ba pare euh, euh, ferenkulaayu ci li nga xam ne mooy ngor gi gi gi gi lal sunu askan bi ñu demee ba nga xam ne réew taax dafa développé réew taax yooyu lay développé dafa indi euh, espèce su njëkkante am ay taalibe plutôt que njëkkante yar ay taalibe loolu lu ñu mën a sikki confrérie yi la parce que tey jii daayira yi dañuy wàññi ñaata daayira la ñu am ñaata ñaata nit ñoom ñoo bokk ci daay mbooloo mi ma topp mbooloo mi ma topp mais est-ce que tàggat mbooloo est-ce que yarba maanaam li ñu daan tuddee tarbiya eh, tàggat doomu aadama bi defar xolam ba mu sellal boromam subhaanahu wa defar boppam ba mu mën a xool keneen ki jàppe ko moroomam bu ko bu ko tooñee sax mu baal ko est-ce que yar boobule eh, eh, defar nit ki ba nga xamante ni ni dafay mën a servir doomu aadama li ñu tuddee xitma servir doomu aadama bi te sàkku ci ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala est-ce que yooyu mi ngi am ba léegi ci tariqa yi je crois que ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci tariqa yi ñun regard boobu la ñuy am ci tariqa yi te ñun war nañu mën a euh, sikk doxalin woowu la ci tariqa yi pour gën koo delloowaat ci ni ko mag ñi tërale woon ba mu méngoo ak yaru diine ba pare jariñ askan wi ci biir euh, penc mi mm-hmm. mën nga continuer ci wax jooju kon léegi dama jàpp ne tey jii mouvement yooyu bu ñu amee pénétration confrérie yi war nañ leen taxawaatal ñoom beneen doxalin bu yees. loolu dëgg am na. nga xam ne lu rek ma am mbumbaayu. Hmm. Euh, nam nangami taalibe. mais taalibe yooyu nen nekk nit ñoo xam ne du ñu wuyoo ci turu sëriñ mais tamit sëriñ bi dafa nekk yoon bi mu leen di teg rek. ñu war a mën a dem. waaw maanaam sëriñ bi dafa leen war ne comme dafay nekk. Euh, koo xam ne ki la dafay nekk seen wasiila lañ koy tudde maanaam comme ne ki moo leen di jokkale ci mhm. yàlla ñoom ñi xamul wala ñoom ñi yaakaar ne moo xam nga Mouhamad Abdou mooy le grand réformiste du 19e siècle en Égypte mhm. nee nit ki digganteem ak yàlla soxlawul sëriñ man xam naa mën naa wax loolu ñoom ay gars yi ñoom ay kii lañ man bokkuma ci benn tarixa bokkuma ci comme. dafa mel ni sax mouvement yooyu la ñuy théoriser de. maa ngi sama waay <laughs> Mohamed <laughs> Ree la. mais li ma bëgg a wax ci loolu Mouhamad Abdou loolu la doon xeex. Mhm. nee na man li may dem di ñaan sëriñ bi pour sëriñ bi ñaanal ma yàlla naa ko ñaanal yàlla ndax yàlla nit ki dara warul dox seen diggante xam nga même boo demee màkk ni ñuy def noonu. ci nuzuur yeeg yooyu maanaam. mais quand même dama la confrérie bi li mu war nekk. maanaam li ko war a euh, tax a jóg mooy guidance spirituelle maanaam daf koy jubal nit ki teg ko ci yoon uh-huh. ndax confrérie yi yëpp muy tiijaan ak murit ak xaadar yëpp ñoo ci yem kenn ku nekk ay nit yu baax lañ ñu sell lañ ñu xam ne uh-huh. ñu ne xëy na jaamu nañ yàlla lu leen jigéñe ci yàlla te xëy na ñëpp mënuñu egsi ci marta ba ba ñu egsi donc mun nit ñi ñëw topp pour teg leen ci yoonu yàlla sellal seen xol tàggat leen ba nga xamee ne bi lay si jëf ju baax ak moytu lu bon waaye nag li tax confrères yi nag yoon boobu dafa am leneen lu ci dugg am na benn article bu ma publié ci Afrique démocratie si mois bi passé uh-huh. sur le clientélisme politique au Sénégal historique bi di nga gis ni bu mu doon tëkkali Sénégal ak yeneen pays arabes yi am na ñuy confrères yi am na ñuy torox suufiya mais gis nga Pape Alé li ma jaaxal man ci Sénégal mooy lu ñu gën a nekk intellectuel lu ñu gën a jàng di gën a jàpp ci confrères yi boo demee ci pays arabes yi loolu. amatul ndax njàng si wàllu politique confrères yi ndax ñu jàng damay ñëw ci côté dama ne njàng <laughs> loolay dëgg yi laa bokk da ngay doon déjà ñu ne ah kii moo fa tegal. confrères yi mooy clientélisme politique bi may wax. loolu yi léeg yi pour jot place wala nga làqu ci confrères yi pour jot ay électeurs wala nga làqu ci confrères yi pour jot euh, beneen privilège léegi nag yaakaar naa ne comme ñun amuñu ministère boo xam ne moo yor mbiru affaire religieuse xëy na ministère de l'intérieur moo yor mbir yooyu te itam pays laïque lañ maanaam état bi bu jouer rolam am yem ci rôle am di bu màggal ñëwee ñu jàppale leen bu Tiwaawan ñëwee popp ngir ñu jàppale ñëpp. Uh-huh. waaye nag état bi warul làqu ci côté bi warul nekk ci côté bi. Uh-huh. même bu élection ñëwee itam li ñuy wax ndigal ak yu demee noonu gis nañu ne am na lu. bare bari boo seet histoire u Sénégal. nit ñi yeewu nañu tellu dollu nañ foo xamee ne file xëy na li ñuy toppi sëriñ mooy nañ ñu wan yoonu yàlla gën ñu jàppale ci yar. gën ñu jàppale ci xam diine mhm. waaye nag xam naka la ñuy dund rek naka la ñuy tàggate suñu bopp si suñu àdduna mhm. yaakaar naa ne kooku njàng mi mool gam parce que sa baay bi la yarit bu la yaree ba nga dem ba nga xam ne yow léegi nekk nga magu jëm mhm. am na lu mu la mën a wax loo xam ne mën nga ko jariñoo mais am na loo xamee ne li de yow sa bopp si sa njàng si sa expérience ndax yaa ko ëpp loo voyagé yaa ëpp loo xam ne uh-huh. booy seet àdduna bi yëpp ma daaneel foofu uh-huh. dama gis ne li Hampâté ba wax rek mooy dëgg moo di lislaam nee na dafa mel ni rek ndox fu mu nekk xeer bu fekkee ne couleuru xeer ba lay jël wala bu ñu maanaam lislaam kenn mënu ko xàjjaleek tradition lislaam kenn mënu ko xàjjaleek aada ni turquie yi defee seen lislaam ak ni ko ñuy def ak ñeneen ak ñeneen boo demee di nga xam ne mu ngoog donc kenn mënu ko unifier comme ni suma collègue gi doon wax léegi ne ñëpp dañu war a duggale nii la war nekk ku nekk daal la nga gëm ak la nga xam ci sa aada ak ci sa baax uh-huh. am na jëf yu rafet yoo xam ne la ci wolof yeeg séeréer yeeg joolaa yeeg ñeneen dafay ñëw hmm. dëppoo ak li lislaam wax. léegi xam nga lu ma def. Hmm. comme yow yaa ngi wax ne am na ay menaces ak yooyu ñu dalal xel yi parce que defe naa sécurité ñu ngi koy ñu ngi koy def euh, ñu dem région seetaan élément bi nga xam ne le chef d'état-major général des armées général Abdoulaye Fall wax na ko euh, pour dalal xelu Sénégalais yi ne tamit dafay baax problème bu amee ñëpp waxtaanee ko. ñëpp am ci même niveau d'information ñu seetaan euh, kàddu yi nga xam ne moom la rotaloon euh, jour bu armee dafee waxtaan mbir moomu dellu si ci plateau bi ndax xam naa léegi ñu war ko ndarket ñu seetaan euh, général Abdoulaye dañuy def at bu nekk ñeenti conférence yoo xamante ne ñu ngi koy jagle au commandement bi dañ ci invité tam xale yi nga xam ne ñu ngi def enseignement militaire supérieur yaa maanaam les futurs cadres di ci invité corps diplomatique bi organisation internationale yi ak ñëpp ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci domaine bi ñuy développé tey nag ñu ngi doon wax ci mbirum euh, jihad ak ndax Sénégal euh, yomb na fi jihad développé wu fi. ki ko conférence bi ku ko def nag du kenn koo xam ne dañ ko ràññee trop ci mbir moomu euh, jàng na ko mu ngi koy jàngale mu ngi ciy gëstu ci bitim réew muy professeur Samb. te euh, réccu ñu itam liñ ko woon parce que ku fekkee tey conférence bi xam ne lim fi wax euh, kenn mënu ci dindi dara ci euh, échange yi mu doon am ak ñeneen ñi nag ku nekk wax nga ci sa xalaat yokk ci li mu wax loolu yëpp nag ñun def ñuy jariñ pour liñ ci xamoon ñu yokk ko liñ daan def te di ko wekk ci li ñu xam comme xam-xam bi yokk na mën na am itam ni ñuy aare suñu bopp dina yokku parce que comme niñ ko waxee Euh, mbir mu la tiital rek mën na la bañ a mën dégg ngeen euh, kàddu yi mu defe naa dañuy ñaan yàlla sëñ sëñ Abdou Aziz bañ ñoo mën nu ñuy du ñu mën de non du ñu mën xam te jàpp nga ne tamit mën nañ ko waxtaane ba sénégalais yi xam ne la parce que tamit li ma jàpp moo di ñooñu ku leen déglu li ñuy wax ñoom ni ñuy pratiquer l'islam seen dëkk lan lay imposer allez xam nga xam nga sànq suma jeune frère Mohamed. Mhm. am na lu mu wax bu tudd wasatiya mhm. gis nga Arabie Saoudite actuellement dañoo am idéologie bu bees. Hmm? idéologie bu bees bi moom mooy wasatiya hmm. idéologie bu bees bi ñu am moom mooy l'islam modéré xam nga maa ngi. oui oui c'est le juste milieu wasatiya c'est le juste milieu c'est l'islam modéré. et tu sais que actuellement am na seeni ndongo yoo xam ne dañu leen di sikk ñoom tuddee xeetu l'islam boobule parce que wasatiya boobule tey boo demee Tunisie moom moo nekk au pouvoir boo demee Égypte am na el boo xamante nii moom lay dawal ci biir frère musulman léegi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon nag salafiste yi parce que loolu dugguñu ci euh, dafay xóot salafiste yooyu la. non xo non xóotal ko. <laughs> non non euh, professeur xóotal ñuy indi ci histoire. non d' accord mais salafiste yi dégg naa leen fii Serekunda. parce que sala salafiste yi mooy ñu ñuy wax ni rek mooy ñi nga xamante ni dañu jël euh, benn période ci dund ku tedd ki si dundu lislaam sax laay mhm. jël benn période ni mooy période bi gën. moom mooy d'ailleurs sax du période bi gën rek mais mooy mooy période idéale bi. référence mooy référence bi. donc li ñuy tuddee maanaam dundalaat période boobu boobule. ni mag ñi ñu jiite woon ñoom la moom la Bakary di wax toujours salafu saalih ak xalafu taalih n'est-ce pas <laughs> que mag ñooñu le ñooñu la ñu war a delloo siwaat ni ñu doon doxalee l'islam maanaam la ñu sacraliser benn période en oubliant que l'histoire c'est un mouvement et qu'on ne peut pas reconstruire l'histoire c'est impossible maanaam def def li weesu woon loolu waxi neen la suñu suñu mag suñu mbokk Souleymane Bachir Diagne mu ngi wax ni képp koo xam ne nee nga ci téere bu mu bindoon sur comment philosopher en islam téere bu am solo képp koo xam ne danga ni damay tabaxaat histoire maanaam li ngay wax mënul nekk parce que kenn mënul tabaxaat l'histoire donc pour pour pour daaneel ci li ma doon wax noonu. Mm-hmm. wasatiya boobule tey jii moom mooy idéologie bu bees bi nga xamante nii taalibe yu njëkk yi nga xam ne ci biir salafisme bi la ñu nekkoon di di di di wax ni jihad la ñu war a boole mu nekk ci seen jumtuwaayu xeex nekkul pour défendre l'islam mais c'est un instrument démonstratif pour wane doone doole islaam la ñooñu tey ñooy tuddee wasatiya boobu la islaam light comme ni ñuy waxee coca light maanaam islaam boo xamante ni xam nga coca light mooy coca ba mu euh, suukar donc islaam light mooy islaam bu saxul lislaam euh, ci seen gis-gis mhm. Euh, yëf yi du ñu mën li tax du ñu mën moom mooy euh, loo maanaam lu la bettul. du la mën moom la général wax léegi. justement ñi ngi ciy xalaat benn ñaareel ba moom mooy que euh, Sénégal ak lu mun ti xew du ñàkk ñu am xalaat boobule mais ñi ëpp ci waa Sénégal xam nga suuf soo gis suuf soo gis dafa maanaam li ñuy tuddee territorialité. Ah. Euh, nekkiinu askan ci kaw suuf du rekk suuf si mi ngi tudd Sénégal waaye suuf si dafa am lu mu meññ ci wàllu histoire am lu mu meññ ci wàllu mémoire am lu mu meññ ci wàllu culture loolu mu meññ mooy mooñ nit ña nit ña ca ëpp moo leen di mooñ mooñ googu mu leen di mooñ moo tax tey Sénégal ñun suñu suñu suuf si li mu ñu mooñe mooy ñi ëpp ci ñun lislaam bi ñuy xam mooy l'islam bu ñuy wéetal seen borom wut seen ngërëmal borom wut seen njariñ ci àdduna ba pare nangu seen moroom mu ñu bokkalul xalaat kii nekk ci tariqa sàngam ki bañ a nekk ci tariqa sàngam kii nekk chrétien te du nekkul si biir diine l'islam ñu bokk tabax suñu Sénégal defe naa ni loolu nekk na loo xam ne sóob nañu ba pare maintenant foofu laay daaneele nga baal ma parce que maa ngi guddal dafa am lu mu laaj mooy fagaru fagaru bi mooy lan moom mooy que kenn du wat jubbu bi tax ñu xàmmee la te bu fekkente ni ñi ñu yilif ci réew mi euh, dañu topp euh, maanaam Sénégal réew mu ubbeeku la ba ñu ubbi ko boyal ko lu nekk di dugg ci turu diine loolu ñu doon wax ci wàllu former ak yar mën na indi beneen xeetu nit gis nga ñun ñun ñi de Babacar Samb bii de mënul dem ci réew yooyu nga xam ne ñoom ñoo ñu yónnee ñuy def fi ay séminaire sur le tawhid moom mënul a dem ci réew yooyu def fa benn séminaire sur la Mouridiya wala sur le Baye Fall les Baye Fall c'est une dimension religieuse duñ la ko may du duñu la ko may beneen bi mooy mhm. yow booy dem ci yenn réew yi téere bi ngay yóbbu xasiida bi ngay yóbbu nga xam ne moom ngay jàng boo jàngee sa sa ñaari isi bu alxuraan par suba mhm. ba pare da ngay jël sa xasiida bi sa mag mi nga gëm bind di ko taggee ko tedd ko wala mu koy def tawassul nga jël ko jàng ko yow booy dem ci réew yooyu boo ñëwee aéroport ñu tegal la ko foofu ba nga dellu si nga jëlaat ko léegi lu tax ñoom ñu am sañ-sañu booy ñëw ñu jox la ay téere yu ndaw yoo xamante ni ci la ñu bind seen xalaatin jox la ci jóor nga indaale ko ñoom bu ñu ñëw indaale ko te yow mënoo dugal sa téere mag foofu donc am na ay mbir yoo xamante ni ci wàllu ñun ñooy ñan il important ñu bàyyi ci xel bañ a xeeb sa bopp ngir loolu dégg naa ngay wax ne parce que ñoo yor xaalis. waaw parce que parce que que loolu lay wane. parce ñoom li tax ñu mën ko xoolal États-Unis tey lu tax ñu mën a imposer seen idéologie en fait kon donc terrorisme en réalité boo ko téye propagande rek puissance la rek nit bu amee doole dafay am tendance la mu am mu jëriñu ko pour xalaatam jàllale ko muy ci diine muy feneen loolu c'est une réalité léegi ñun comme ay waaw seule différence c'est que euh, booy dem euh, États-Unis téere bu la neex yóbbaale. ok non non je je veux dire. insisté wu kenn du tere dara nga. yóbbaale li nga wax lu li nga wax lu wér la. mais li ma bëgg a wane foofu rek. Hmm. raison yi xam nga mbir boo koy wax su su nekkee la la ko waral. duñ ci insister rek duñu am sa saafara. Hmm. cest à li ko waral mooy ñun suñu réew yi ni mu bindoo nekk wax naa la ko bu dee ñun suñu doom yi bu ñu jàngee ba egg fenn mënaguñu eggali seen jàng fii parce que amuñu lu ko fay def nga dem jàngi feneen du la jox idéologie saafara bi kon mooy nañu taxaw ci loolu beneen bi mooy ci wàllu xalaat gis nga xalaat kenn mënu ko tëj dafay évoluer yaa ngi tudd sànq tarixa mais tarixa amul benn melo bi mu juddoo Sénégal ak tey ñaata évolution la def xoolal Cheikh Ahmadou Bamba ba muy ñëw di di samp Mouridia mais c'est une critique de ce qu'il a trouvé sur place moo ko may mu ne man de lii ak lii expérience bi ma am ci tarixa yi ak yi ni laa gisee ne dëppoo na ak fa ma toll ci jamono mu tëggu ko noonu mais xoolal tarixa buy bi muy créé Tijaniya bi ñuy créé li ñu tuddee daayira nga xam ne au début ay intellectuels ñoo ci daan nekk même francisans yu ci njëkk nekk ay xalaatkat ak daayira tey nu mu mel nu mu bindoo xoolal ci biir tarixa yi ñuy wax sufi xoolal question violence bi xam nga ñu ngi wax wahabiya ak yooyu di wax violence mais am na tarixa yoo xam ne tey mais dañuy promouvoir violence gis nañ ko ci élection yu mujj kon Sénégal il faut ñuy gëstuwaat cest à il faut pas ñu taxaw ci benn mbir rek ne way tarixa yi nu ñu koy ñooy woote jàmm am na tarixa ci biiram mhm. loo xam ne évolution la boo xam ne il faut ñu koy càmbar di ko gëstu alors suñ ko deful du am saafara gars yi ñu ne sax xam que pour comment faire pour gérer tout ce problème ñu bàyyi nekk ci jàmm xam nga xalaat yi ñuy wax yépp kenn ci ñun yaakaar naa ni amul xalaatu ni euh, da nga bëgg a tuumaal l'islam ñun ñëpp bu ñu sañoon deru lislaam rafet ak fu mu fu ñu mën a nekk mais li am solo ba am solo mooy. tey li war mais quand même nag détruire ay Tombouctou ay yooyu. mais lu doy waar la mooy ñi ma tuddee. di di xeex di xeex ay. mais conception boobu tu peux pas dire que yow sa conception. moom moo gën conception ñëpp. Pape nga may ma ci wàllu lislaam nga may ma une jàkka ji kenn du fi wasifa jàkka ji kenn du fi wasifa loolu laa wax ne loolu loolu. àdduna bi yëpp tey wax na ko tendance bi ba ci Arabie Saoudite uh-huh. bu jox na la am na benn étude bu gars yi defagul uh-huh. gis nga Sénégal am na ñoo xam dañu doon wax ne politique dafa aram uh-huh. te arab te foofu lañ ko doon jëlee tey évoluer nañ ci loolu mais ñuy wax ne ay tombo ay lii dafa dañ waruñu ko dañuy màggal ay ay ay ay loolu ay idée la yoo xam ne ay xale yu ko def seen bopp la yu war a deñ loolu loolu c'est pas normal te kenn du ko accepté kenn waru ko accepté donc li ma ci xalaat rek mooy yaakaar ni euh, fagaru dafa baax donc moo tax tey réew Sénégal mënul ñàkk mukk lu ñu mën a tuddee benn plateforme de veille boo xam ne day fagaru mhm. veille stratégique boo xam ni pluridisciplinaire parce que question sécurité du ay militaire a ñoo ko mën régler mhm. sociologue bi am na ci wàll spécialiste relation internationale ki jàng euh, ethnologie wala leneen culture am na ci am na ci wàll kooku diine pour def prévention am nañ ci tuddee prévention boobu ak pour def prospective maanaam fan lañ jëm beneen bi mooy mhm. parce que xalaat boo bàyyi benn xalaat dugg rek il faut mu am beneen xalaat bu koy opposé il faut ñu valoriser lu ñu am ba ni ko Abdou Aziz waxee sànq euh, euh, ñi nga xam ñoom la jokkante ci wàllu xam-xam muy dëkku arabi kat ñu li nga xam moom la ñu pro moom la ñu produire fii parce que yaakaar naa ni tey Sénégal aberration la nga dugal fi benn téere bu ndaw di da ngay jàngale tawhid bàyyi fi Masaalikul Jinaan bu bu euh, Sëñ Touba bàyyi fàkkat tulaab bu bu bu Seydi Hadji Malick ak yeneen ak yeneen ak yeneen li li li ma ciy teg rek mooy bu ñu defee valorisation bu ba pare ñu xam ni tamit fagaru gi mooy benn réew tey nekkul à l'abri Sénégal kenn ñaanu ko yàlla mu nekk euh, théâtre d'opération mais mën na nekk zone de repli stratégique comme ni ko gisee ci événement yu mujj yi donc fagar goo ñu gën ci parce que d'autant plus que ñoom li ñuy gën a théoriser mooy wéy modernisme affaire yooyu te maa ngi dégg gars yi di wax accords yi ñu ne euh, Macky il a accepté que le Sénégal nekk le repris ñu bëri am na ñu bëri ñu ma ci question boobu l'université dafa nekk terreau fertile yow professeur nga université foofu noo leen mën a def. waaw li ma yaakaar ne université xam nga bu jëkkoon dans les années 60 70 boobu dafa amoon. débat idéologique ay débat idéologique marxiste léegi li fi am. Eh. moo di daayira nangam daayira nangam boo déggee xale yu bari nañ du ñu mën a jàng ngir ñi zikkar ñu maanaam tarixa yëpp daal ku nekk boo demee université bésu àjjuma wala. bari boori timis boo jaar foofu doo dégg lu dul lool. maanaam léegi xam nga maanaam lislaam dafa nekk refuge. Uh-huh. ñaareel bi itam moo di ne xam nga li xew. Tunisie Maroc euh, Égypte ba Yémen mais islamiste yeeg sal entre islamiste yeeg salafiste yi ñoo jël pouvoir élection Tunisie yi islamiste yi ñoo ñëw deuxième position ah. salafide yi ñoo ñëw deuxième position. islamiste yi modérés yi nekk première position boo demee Égypte loolu moo am frère musulman bien que frère musulman modéré Morsi moo jël premier mais deuxième bi mooy salafite yi tous les maanaam idéologie de gauche ak idéologie euh, euh, euh importée de l'Occident c'est terminé donc ñëpp yaakaar nañu ne donc léegi ni Qardawi doon wax ne al islam huwa al hal c'est-à-dire que la résolution de nos problèmes existentiels aujourd'hui lislaam moo ko man def ñu bëri gëm nañu ne lislaam moo ñu mën génn ci lii dootul communisme dootul socialisme du libéralisme du laneen mm. ndax dañuy ressourcé wu ci suñuy aada ak suñuy sëriñ wala boog dañuy seet li nga xam ne dañ ko jële bitim réew ñu càmbar li ñu jooy war na arabe ak li ñu jële fii ñu boole ko moo tax ñun département d'arabe commencé nañu depuis année quatre-vingt-dix arabe rek lañu doon jàngale arabe bu jóge bitim réew. parce que damay su ma leen di dañuy wax ne ñun français yi dañuy rulle R. mu nga mais yéen it arabe yi da ngeen wax. <laughs> mu nga ah, ah, te yooyu. Ah, léegi dañuy jël œuvre yi comme ni Bakary doon wax léegi eh. ay euh, Haji Malick Ahmadou Bamba ma jaxate kala. Mm-hmm. Euh, Cheikh Moussa Camara dañu koy jàngale ñu xam ne ñun am na ñuy intellectuel yu bind ci arabe. mooy littérature sénégalaise d'expression arabe mu nekk ay unité d'enseignement yoo xam ne dañ ciy former suñu étudiants yi mhm. pour man a moduler xalaat bay jóge bitim réew la ñuy jàng ci arabe bi ak li ma tontu ci li ma wax rek pour daaneel foofu dëgg la étudiants yeeg arabisants yu bari bu ñu paree amuñu fu ñu jàngi ndax baccalauréat yi connaître nga Abdoul Aziz bi chef de département defe naa ne bu yàlla sàkk di nga jot téeméer nit yu ñëw ne dama bëgg a extérieur département ñu ne bii diplôme université xamu ko ndax compte ak norme yi nga xam ne moom la. Ah, éducation nationale l'État doit trouver une solution. l'État doit trouver une solution euh, mhm. foofu lay daanale ma ne bi man bu may jël nit dikk envoyé bitim réew. bu ma koy envoyé na dama bëgg kii nekk ingénieur dama bëgg nekk ni ingénieur agricole kii communication. Mhm. ñun déedéet bourse yi bu ñuy ñëwee mu jóge bitim réew état bi moo koy jël jox maanaam lu ko ñu jox ko étudiants yi nekk département d'arabe wala ñi nga xam ne formé nañ leen ba mën nañu def spécialisation dañu koy jël nag jox ko sëriñ ñi nga xam ne dañu am école yu mag. ñu dem mhm. former leen ci théologie ñu former leen si usuru din Euh, maanaam ñu former leen ci mbiri charia moo tax ñooñu bu ñu ñëwee ba léegi dutuñu am fu ñu liggéey ndax ñëpp njàngale rek mënu leen jël. très donc euh, war nañu spécialiser arabe arabisant yi uh-huh. pour ñoom ñu nekk ay acteurs de développement am arabisant bu jàng mbiru xam-xamu mbéy tool bu jàng communication. Mhm. bu jàng maanaam géej bu jàng laneen ak laneen. très bien Abdou Aziz euh, mën naa la may nga tontu ci loolu mais ma joxaal la benn laaj boo xam ne dama la ko dégg sànq mu ne lislaam am na ñu bëri réew yu bëri def nañ fa ay percées ba jël pouvoir beeg yooyu mais Sénégal kuy waxal yàlla te yàlla tax. élection législative yi def nañ si une percée remarquable. ah personne remarquable ma bëgg ngeen jox ma ci seen <laughs> lecture d'autant plus que on parle toujours de la même chose alors euh, te et puis bu ñuy wax aussi mën na leen parti de gauche yi def nañ fi vingt ans di dem ay élection chaque jour zéro virgule cinq la ñu mu ñu woon benn député tey jii gis nañ fi ay gars yoo xam ne nañu wax dëgg rek nag bu ñu toogee ñëpp toog fi ñëpp tam ay gars yi lañu wante eh, nga wax ñu sa lecture ci par rapport ak loolu euh, loolu lu am solo la gis nga gis nga sànq Babacar professeur Babacar am na am na lu mu ci laal hmm. gis nga réew yi dañoo amoon euh, lu leen boole woon ak tubaab bi maanaam le colonisateur hmm. bi mu amee lu leen boole ak colonisateur bi ñii def nañu jihaad xeex ak colonisateur bi ñii euh, euh, mu daarante nag ñoom def une euh, stratégie de formation intellectuelle et culturelle ci population yi ñii formé nañu ay association ngir jege askan wi léegi bi ñu amee indépendance état yi nga xam ne ñoo wutu colonisateur bi dañoo wutu colonisateur bi mais toogaluñu askan wi gis nga mun naa wax ni les assises nationales yi ñu defoon fii. Mhm. mooy jotaay bi njëkk ci Sénégal bu askanu Sénégal ci ay pàccam yu baree bari toog ni ñun suñu réew nu ñu ko. bëgg yore loolu c'est très important loolu nag ñu deful woon moom moo tax état yooyu ñii dañoo daal di nekk prolonger li tubaab bi doon def ñii dem prolonger li beneen tubaab doon def. looloo mhm. indi idéologie yi nationalisme ñii dañ par exemple Afrique. la renaissance africaine le nationalisme africain boole ko ak idéologie socialiste wala communiste yooyu wala ñu ñu boole ko ak néocolonialisme yooyu yëpp bi ñu demee de 60 par exemple au Sénégal jusqu'en 1970 78 79 amul lu mu jur ci Sénégal ci wàllu développement lan la jur moom mooy que dañu dellu gannaaw ñu indil ñu les plans de redressement économique et financier ce qu'on appelait le PREF après le PREF mu am le plan d'ajustement structurel ce qu'on appelait PAS ah. ñaari plan d'ajustement yooyu la jàpp Sénégal en fait du Sénégal rek Afrique yëpp ak monde musulman yëpp di leen takk seen ndigg ba nga xamante ni mënatuñu dara dans les années quatre-vingt mu am première révolution en soixante-dix-neuf mmh. première révolution iranienne montre que l'islam taxaw na taxawu na benn état mi ngi dugal ci mmh. société bi doxalin woo xamante ni wuute na ak nationaliste yi di doon def wuute na ak ñële lu ñu doon def kan moo fi desoon ci réew yi nga xamante ni nii euh, ñooy les états post-coloniaux hmm. ñi nga xamante ni dañu sësoon ci xalaatu diine di jege askan wi di leen fajal seen soxla di leen wax loo xamante ni méngoo na ak seen gëm-gëm te méngoo na ak ngor gi nga xam ne moom la askan yi nekk quelle la plus grande demande par dans les assises nationales c'était l'éthique l'éthique ngor googu le nag l'éthique c'est important moom moo tax kër réewu jullit ñi bi ñu demee ba vent euh, démocratique bi dugg nit ñi dañu defoon ni ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi wàcc place Tahrir di def ay manifestations di wax euh, di def ay revendications démocratiques comme tudduñu ci l'islam dañu defoon ni c'était des revendications contre l'islam foofu lu ñu juumee ay jullit lañu yu toog ci seen culture islamique ak seen mémoire islamique ubbeeku sur le renouveau démocratique parce que y a une conscience de renouveau dans le monde loolu la ñu sëyale ak li ñu gëm loolu moo tax parti yooyu lañ nga xam ne mosuñu am compromis ak état post-coloniaux yi ñoom rek ñoo fi desee woon crédibilité ñoom tamit ñoo présenté lu nit ñi mën a dégg moo tax ñu voteel leen fii Sénégal percé bi tamit loolu mooy ci réew analyser fii même chose c'est-à-dire que fii boo xoolee lan la parti yi ñu yore woon depuis Senghor maanaam l'ère senghorienne mhm. moom moo jeex xam nga damay wax benn xarit man ko ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam bi dafa wax ni téeméeri at yu nekk dafa am euh, yàlla day wàcce ku yeesal diine ji man nag gëmuma ni benn nit la mhm. dama gëm ni c'est une conscience de renouveau moom la yàllay wàcce ci jamono conscience de renouveau bu la mu dugg ci biir nit ñi dugg ci biir groupement yi mhm. conscience de renouveau bu nag moom moo feeñ ci assises nationales yi éthique boobu la nga xam ne moom la ñu gisul ci homme politique yi à travers la représentation nationale on a mmh, vu ça absolument. on a vu euh, l'enrichissement sans raison de ay nit ñoo xamante ni gisuñu ci dans maanaam ci liggéey liggéey liggéeyin dafa am doxin doxin woowule nit mënu cee teel a amee wërsëg wu toll noonu le ci doxin wi nga xam ne diggante bi ñu leen fi tegee ak diggante bi ñu fiy génne yooyu yëpp nag moom moo tax askan wi nangoo dooleel ñi nga xam ne ñi ngi wax li ñu gëm ba pare wane ngor loo tax mën la njaalbeen la njëlbeen la njëlbeen la. <laughs> justement euh, Baro moo wax la ma jox la deux minutes nga wax ci percée religieuse bi. waaw bu ñu seetlu ci élection législative yi. waaw d' abord dama bëgg xëy na loolu jar na gën a étudier daal. waaw deuxième temps est ce que percée la non non est ce que sax percée la. ak lan moo ko waral tamit du rek question wu diine bi wax na ko léegi éthique parce que aussi. Sénégal dafa am benn école bu yàgg a jiite. 60 mhm. ba léegi école boobu la mooy ñi ñu jàpp ne ci école nasaraan la ñu jàngee. créer ay parti politique bu ñu xam nu ñu bindoo. non homme politique nag dañ mën naxaate dañuy wax ne no l' état il faut avoir les mécanismes pour le gérer di la ristel ay ay ay ay ay ay constitution te affaire bi da nga koy yor gars yi xam ne yor nga ko gérer nga ko normalement gars yi mën la wóolu c' est aussi simple c' pas parce que dangay toog ci dar yor sa kurus te mënoo yor la c' est boo xoolee. c' est un discours qui est faux. percé maanaam foofu dama bëggoon indi benn kii bu ndaw rek rectification ci li ma doon wax mm. parti yooyu ñuy wax en fait c'est pas des partis religieux non pas du tout ça aussi c'est très important c'est-à-dire mooy li ma doon wax ni c'est des revendications démocratiques mm-hmm. portées par des hommes de religion voilà ah, léegi c'est très bien dit contexte bi mu dal contexte réveil la réveil islamique bi xam nga am na lu ñu ko tudd léegi mm-hmm. Sénégal dans les depuis les années cinquante ba tey dafa am ñu jàngi woon ci ay réew ñëw indi xalaat fekk fi aussi benn melokaan loolu nag terrain la parce que aussi wax naa la ne tarixa yi ni mu bindoo comme dafa évoluer mhm. xam-xam yooyu tamit ba ñu ñëwee dafa am besoin bu nit ñi amoon buñ ko manquélee fii tuuti di ko uti fële bu ñu ko manquélee fii uti ko ci tarixa yi mhm. loolu benn mouvement la bu fi am boo seetloo avant percée yi ñu li ñu tudd percée islamique parti traditionnel yi commencé woon nañu di utiliser diine lu bëri ci seen discours gis nga fi leader yoo xam ne ku mel ni Idrissa Seck ko mel ni keneen doon xam ne parce que ñoom ay politiciens lañ dañu am xam-xam ci ci ñuy indi ay voix xam nañ ne diine jii nii am na ñu ñor te bëri nañu parce que bu ñu fàtte ils sont majoritaires les les musulmans donc gis nga ñu koy utiliser te pourtant boobu kenn waxul utilisation manipulation dañ daan indi ay aaya di wane ne parce que xam nañ ne réew mi besoin wu njub ak éthique dafa daf fi nekk leneen li ma jaral leeral aussi mooy le discours sur l'éthique ak l'éthique bokkul sénégalais yi aussi bi ñuy voté boo seetloo mal percé percé yi percé mooy loo xam ne dafa bett ñëpp. Uh-huh. percé bala boo doon am nga gis ah. bala mu doon am bala bu uh-huh. doon percé la. Uh-huh. da gis koo xam ne barteem day am ay fukki nit yoo xam ne dañu leen xamee woon ci ay diine alors que amul. très bien doon euh, woote diine yëpp. ñu ci ëpp ci ñoom ba ñu ñëwee benn lañ am pour ma bay pour nga réagir ci liñ gis. oui euh, ci élection des hommes religieux. qui ont eu le courage d'aller affronter les urnes. je pense que ce serait injuste ñun ñëpp ay des hommes religieux ñu dugg politique ku mel ni par exemple bis du ne xam engagement non manifeste citoyen la. ne ne xam ne dans les mouvements de gauche. à l'UNEF au PC e, en France. ku mel ni imam imam Mbaye Niang ne xam ne son euh, donc ñooñu am na donc fu ñu jaar. Euh, li ma ciy wax rek mooy man c' est quelque chose que je salue euh, de, de, depuis les années 95 et je sais que boobu yombul woon. la commencé ni les mouvements yi ñuy tere ñu bokk ci élection yi. ni mouvement religieux lañ leen bàyyi ñu dugg. pourquoi parce que suñ duggee démocratie la ñu utiliser ba am ay voix ba am ay député ba ñëw au pouvoir démocratie boobu ñu utiliser ba àgg foofu moom la ñu war a sàmmaat. bu fekkee sàmmoo kon ak seen kàddu ak seen éthique. ba démocratie boobu sax léegi nag loolu mooy la grande question gis nañu modèle bu mel ni Turquie. boo xam ni man dama ko idéal idéalisé woon. bon ba léegi maa ngi ko idéalisé ak la réussite extraordinaire de de Erdogan. Euh, ak PJD bi nekk Maroc et mais am na. Euh, en Turquie a fait la aussi. actuellement ñu ngi au pouvoir mais est-ce que dinañu permettre tout le processus démocratique ba tamit alternance politique mën a am. très bien ñu bëggee <laughs> ñu jóge fa démocratie boobu loolu mooy la grande question ma may nga wax ci loolu. man damay wax ne amul percé du tout. Hmm. vraiment man li nit ñuy tuddee percé tuddee moo ko percé. ndax boo seetee politiquement en 98 amoon nay parti politique yu bëri yoo présenté woon législative hmm. en mille également Cheikh Ablaye Dièye rek moo fi nekkoon député si parti politique yi hmm. ay Ousseynou Fall nangam ak ñi waxoon tey ay coalition salaam ñooñu ñëpp te ñii nga xam ne ñi la ñoo am benn député waxoon nañu am nañu 11 million de d'électeurs ah comme faxas masal ah hmm. 11 millions d'électeurs nga am benn député <laughs> yaakaar naa ne benn perse rek la ñu mën a wax mooy bu Mansour Sy Djamil te ni ko Bakary waxee noonu la ko déggee itam mouvement citoyen la homme de gauche la nit ñi boo ne Touba taxul ñu wateel la am na dégg naa ñooñu dem da Touba ñun du ñu dem ci sëriñ bi di di jël turu sëriñ bi di ko jëfandikoo ñun tuwaay rek ba muy wax it mu ko taxaw ca Touba ci euh, xaram ba loolu nag <laughs> dama lay won ne nit ñi dañu yeewu yeewu boo xam ne boo utiliser diine pour dugal leen ci politique xam nañu lu ñu bëgg. Mhm. xam nañu ne Macky président Macky Sall bi ak ni mu waxeek ni mu euh, programme am yoonu yokkoteeg ni mu ko tëralee. Mhm. yaakaar naa ni soixante quinze pour cent des sénégalais presque soixante cinq pour cent ñoo ko voté premier tour. Mhm. bi ñu ñëwee pour élire député yi sénégalais yi dañu am benn idéologie benn idée arrêtée. moo di député yi seen bopp lañ fa newal ak ku mu manti nekk. kenn voté waaw nit ñi voté wuñ. Mm-hmm. ngoon nag dama yaakaar ne sax seen participation waroon na man yokk taux participation bu njëkk bi amoon présidentiel mais nous nous sommes arrivés à trente xaw ma cinq xaw ma trente sept pour cent. trente trois pour cent. Mm-hmm. donc yaakaaruma ne am na percée religieux très bien parti religieux yi comme mbay Niang ak ñooy waroon nañu mën a am lu ëpp loolu yaakaar naa ne. je pense que voilà eh, très bien euh, alors nous sommes à la fin de l' émission ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax je pense que challenge la pour ñi nga xam ne dañoo am lu wax les hommes euh, de religion yu dem assemblée nationale. parce que le besoin a été exprimé par les sénégalais soo xoolee même Macky Sall l'a très bien compris buy wax ay gouvernance vertueuse ah gouvernance dans la sobriété. moo di sénégalais yi am nañ besoin bu ñu exprimer teg ko ci table bi besoin boobu ça commence d'abord par la gouvernement ñi mi ànd ak mais tamit ñi nga xam ne c'est des hommes religieux am nañu sas parce que munoo wéeru ci diine di am comportement yoo xam ne buñ ko mën a tolérer ci homme politique duñ la ko mën a toléreel yow nitu diine gi parce que diine du ci am xel ñaar nii la dafa jub xocc xam nga homme politique yi moom damay wax toujours dañuy jéem a nax tey dama na fer nañ ay nax mooy dañuy taxaw du ñuy wax bon xam nga Touba Tivaouane mais la ñu gëm ci loolu daanaka naka du duma ci yegg euh, mais damay wax toujours sénégalais yi dofatuñ fer nañ ay nax ko dem Touba bëgg ko mbubba wala Tivaouane dañuy bàyyi ba nga ñëw ndakaaru nga xam ne dafa cosmopolite lépp a fi am cathédrale baa ngi jégle zawiya bi bu cosmopolite nga xam boo ñëwee fii ñu régler sa problème ak euh, yow kon euh, bo décryptage dama leen di jox rendez-vous incha allah àllarba prochain si beneen sujet euh, ak yeneen gan ngir leeral askan wi jërëjëf.